aca jërë ngeen jëf euh, yéen sunu mbokku internet bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di ci delloowaat rek ku nekk euh, sa wàccuwaay amaat li di kontaan ak mbégte bu baax nag comme ni ma ko faral def saa su nekk kilifa yi wala sëriñ boo xam ne dama laa dalal ci biir site bi rek saa su nekk damay bëgg ñuy waxtaan ci xam-xam di ci yaatal bu baax a baax ba ñi ñu topp saa su nekk dañ ciy mën a jëlee lii di njëriñ lu taw fexe aca ba tax na nag tey indilaat naa leen beneen kilifa tey nag mu di njël benn émission ci biir site bi kooku la ñuy tuddee sëriñ Mohamed Diouf dinañ yaatal ci ponk yu yaatu waaye ci diggante ñaan ak paj dinañ ci waxtaan bu baax xew jamono dinañ ci dellusiwaat mu di actualité li xew ci biir réew mi saa su nekk aja laata dugg xuus sama biir programme kilifa gi damay bàyyi nga ne wax mbokk askan wi bisimilah. bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين asalaamaaleykum mbokk àddina asalaamaaleykum mbokk bitim réew ñu ngi nuyu ñëpp di leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay di jiital si nuyoo bi xalifa généro yi nag si dëkk bi yëpp di leen di nuyu di leen di ziar bu baax a baax di leen di jox seen di leen di ndokkel si weer bu sell bu tedd bi ñu nekk. leen di ziar bu baax a baax a baax a baax di leen di ñaanal yàlla gudd fan ak wër yàlla yàggal leen fi kattanal leen. ci barke alxuraan. di nuyu kilifa aada yi si dëkk bi di leen di nuyu bu baax di leen di ziar di leen di jox seen wàccuwaay. di leen di ndokkeel si bës si weer bu sell bu tedd bi ñu nekk di leen di ñaanal yàlla gudd fan ak wër yàlla yàggal leen fi kattanal leen di nuyu suñu mbokk séeréer yi waa île bi foofu lañ cosaanoo foofu lañ jóge di waa Ngajoor waa Baasul Baasaar Caalaan jënd ñëpp ñu leen di nuyu di leen di jox seen wàccuwaay bu baax a baax di leen di jaar di leen di jaar bu baax a baax a baax di nuyu suñu waa dëkk it di nuyu suñu chef de village di suñu imam di jël nuyu bu di teg ci loxo mu teg ko ci loxo imam mu wasaare ko waa dëkk bi yëpp di nuyu suma papa ak bu baax a baax a baax a baax. salaamaaleykum yow Cheikh it maa leen nuyu bu baax a baax yow ma dalal ci sa chaîne bii nii deux cent vingt et people. Mm-hmm. jërëjëf jërëjëf sëriñ Mouhamed Diouf jërëjëf ci nuyoo bu am solo yooyu ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaane ginnaaw sëne set yooyu daan dak daal kontaan nañ ci bu baax dinaan la dalal jàmm aja ñu fas yéene waxtaan ci xam rek yaatal ci lu toll ci juróom-benni ponk mm-hmm. waaye juróom-benni ponk yooyu bëgg naa ñu yaatal ci bokk ci ñaan ak paj bi nga xam ne suñu borom am na lu mu la ci dénk te nit ñu ngi koy waxtaane ndax yaa ngi ci def résultat donte tey lañ lay door a dalal duñ fa jógee dinañ waxtaan ci président Ousmane Sonko du lenn euh, ci kaso bi la jëm wala génn tëbaski ji fële di dëkkam di Ziguinchor loolu sëñ bi nee na dinañ ci indi leeral dinañ ci waxtaan bu baax a baax aja ci seet ci la ma bëgg a wax tolluwaayu réew mi lim ci gis waaye nag lim ci gis yéeme na de waaye damay bàyyi ñu yaatal ci ñu waxtaan ci bu baax aja élection 2024 yi coow yi bëri woon na fi diw dina bokk diw du bokk aja euh, kii di Karim Wade xalifa Sall ñooñu dinañ bokk xaw ma ko dut bokk waa dinañ bokk ma laaj ko mu ne ma tey ma wax la mooy doon président élection 2024 yi te dara du ko dindi jërëjëf sëñ bi ah fi mu bëgg ñu tàmbalee président Ousmane Sonko gis nga ci guddi yi mu nekk. loon euh, guddi la mën a la bët setagut mu ngi ci lëndëm lëndëm gis nga ko maanaam dañ presque tëj la sax yow gis nga fu mu génnee bokk ci ñi tëbaski ji mu dem Ziguinchor julli comme ñëpp wala da ngaa gis mu tëbaskee ci kaso bi loon ci mën a wax. waaw alhamdulilah loolu luñ ci mën a wax du bëri. parce que Sénégal lañ nekk réewu état la réewu démocratie la yoon dëkk yoon la it waaye dafa nekk affaire bu jafe wax parce que ay mbiram gis nga ko mu ngi saa mi ngi ci ay xat-xat dëgg-dëgg mi ngi si ay jafe-jafe waaye alhamdulilah Sénégal daal lañ nekk te Sénégal instant bi compliqué jaxasoo na li ñu si mën a wax daal lépp bu ñu ko tegee ci yoon daal lépp teg ko ci yoon rek rek rek rek. incha allah gis nañ mun naa julli ji Ziguinchor incha allahu rabbi loolu moom gis na gis nañ ko incha allahu rabbi non kaso gi moom insta bi moom fekkee bëgg nañ jàmm senegal rek rek rek moom noo Ousmane Sonko moom instant bi moom nañ ko bàyyi mu julli ji rek julli ji si njabootam incha allah loolu lañ si gis te loolu lañ ci mën a wax. jërëjëf ñu dox ba léegi yaatal jàll ci beneen ponk damay ñëw ci. Euh, ni nit ki mën a def ba aar boppam ndax euh, donte dëkk bi dafa tëri di jamono ji toll nii te yow am na yoo xam ne yaa ngi ko ci liggéey mu di kaaraange yu am solo yooyu laa bëgg ñu dellusiwaat. waaw nit ki moom dafa war a jóg ci boppam lu njëkk li nga war a def taxaw sa bopp aar sa bopp ñag sa bopp boo mën a doxal sa yoon. nga xam da nga koy dox ci jàmm. waaw ci instant bi àddina bi moom dafa doy waar. boo deful kenn daara sax ñi yaa ngi jéem a dox sa kaw. waaw mm. lu si ëpp sol daal kaaraange fagaru aar sa bopp mm-hmm. ba nga xamante ne ah du ma la kenn du la mënal da waaye képp ku lay jéemal dara na nekk si ay jafe-jafe xat-xat yu métti métti métti métti métti incha allah te loolu ñu ci liggéey liggéey bu am solo boo xamante ne mm-hmm. incha allah képp ku si jëflante rek di nga xam ne jëflante nañ ak yow ci mbiram kaaraange si mbiram fagaru aaru mm-hmm. incha allahu rabbi waaw euh, ñu jàll ba léegi jàll ci beneen yaatal damay ñëw ci maanaam euh, ni nga mën a def ba boole ay nit ndax donte féewaloo bi dafa bëri te dañ koy gis ci famille yi wala ñi nga xam ne dañuy bokk ci benn société fu ñu liggéey mais da nga fay gis neexoo ba du tax euh, mu toll noonu boole daal mbiram nopp bëgg naa ñu waxtaan ci. waaw noot alhamdulilah loolu lu yomb la lu jafe la su ma lay lu yomb la parce que doomi aadama dafa màgg doomi Adama jàpp ko noonu yomb. yomb na su ma la su ma déggee ma la ko. Mm-hmm. boo xamee yoon bi yomb na parce que doomi adama bu dafa am biddiw. nit ki du ay xaatim rëdd xaatim rek mooy jàpp nit ki mooy fës mooy fës nit ki. nit boo xamul biddiwam. Mm-hmm. mënoo ko jàpp mënoo ko ñaanal yàlla. nit ki pour nga ñaanal ko yàlla ci yoonam gën a leer mu ubbeeku ubbeeku bu gaaw wala ci mbiram noot lépp il faut nga xam biddiwam parce que doomi adama biddiw la. te biddiw daa am fu ñu toll loolu nag. ñu jàng elmul nujum ñoo ko xam loolu du ñun kese sax même tubaab bi sax xam nañ ko ràññee nañ ko bu baax a baax a baax donc te kuñ suñu gisee nit rek pure part dañuy xam ne kii ban genre nit la war doon ci addina waaw loolu il faut nga xam ko parce que doomu aadama bi déwoom daa am fu ñu toll benn instant day demee doole day am puissance daa am benn instant bu muy tamit day wàññeeku day faible insa boobu nag loo boo xamul mënoo def ci moom moo xam ñaanal ko yàlla moo xam loo loo ko bëgg a defal loolu fekk xamoo ko ba dem ba ko rek doo ko mën a def kon ku biddiwam euh, fay mën nga koo taalaat ba ñëpp xàmmeewaat ko gën ko gis ca kaw waaw incha allah loolu ñu ci liggéey liggéey bu am solo dañ ci yëngatu bu baax a baax a baax moo xam boole ay nit moo xam ku biddiwam fay bëgg tàkk bu àddina bi ñëpp xam la bëgg liggéey sa liggéey bi doon am ay jafe-jafe bëgg ñëpp ñëw ràññewaat la ak ci liggéey boo munti liggéey boo munti yëngatu mhm. bu ñu jëflante ak yow rek di nga incha allah di nga si gis tawféex incha allah. jërëjëf ace kooku mooy Serigne Mouhamed Diouf nee naa leen du doon koo xamee dafa naqaree jot ndax numéro yi ñu ngi doon affiche suufu baar d'écran bi da koy jël rek nga contacté ko dina jëflanteek yow ba sa xol sedd guy ace euh, dama ñëw ci benn feebar nga xam ne dafa sonal nit ñi waaye li ci ëpp ci xale yu góor yi la ñi nga xam ne ñu ngi ci fukki ak juróom ñett jàpp ba ñaar fukk ak juróom xam nga ne ñooñu ndaw lañ mais sëy bu yàgg daal mënuñ ko feebar boobu laa bëgg am loolu ci jàppale waaye instant bi moom néew kattan moom bëri na torop torop torop suñu jamono kii nii lu ko waral nag bëri na foog gi da koy waral ak lekk-lekk yoo xamante ne it yàlla xam baax doy na loolu lépp da koy waral waaye tamit am na loo xam ne garab yi ñu ngi fi mu ko di utiliser di jëfandikoo loo xamante da ngay delluwaat sa kattan jotaat sa kattan jotaat sa ngóor bu baax a baax a baax a baax te loolu ñu ngi liggéey liggéey bu am solo it. Mm-hmm. ku ci bëgg rek boo ñu ooyee rek incha allah mun ci mun nañoo liggéey ak yow liggéey bu am solo te ñun ñun ñun doomi aadama yi dañoo bëgg a bàyyi suñ suñ suñu yoon rawatina ñun senegal parce que doom dëkk bu na rek yàlla lii faj jam kii askan boobu rek mu ngi ko def si dëkk boobu ñoo bay lu ñu lu ñu fi yàlla defal di bëgg a seetuwaat leneen loolu lépp tamit bokk na lu indi gën a yokk jàngoro gi topp kii nu ti sax comprimé yi duma ma gaa lu baax la mhm. waaye tam garab yi loolu yëpp boo xoolee nag si xam-xam ci garab yi la jógee mhm. ñoom ñoo ko dugal si si laboratoire yi dafara tera terate ko mhm. loolu lépp ci xam-xam la gëstu la rek te waa loo alhamdulilah ñun ñu ngi ci yàlla ci yàlla ngi si defal tawfeex ñu ngi ciy góorgóor baax a baax boo buñ jëflante rek garab bu ne rek nañ la ko jox nañ la wax ni ñu koy utiliser ba du la jox benn benn jafe-jafe doo si am benn loraange incha allah. am na solo jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leeral yu am solo yooyu nee naa leen lépp rek ci xam-xam la koy wér tey garabam soo ko jëlee di nga xam ne benn effet secondaire nekku ci aja euh, ñu dox ba léegi wéy jàll ci beneen ponk damay ñëw ci mbiram papier olof njaay naan ko këyit suñ ko waxee seen xel dina daj ñi bëgg lii di visa waaye ñi nga xam ne dañuy yuutu lu mel ni examen yi befe mi ba ci bac yi loolu alhamdulilah ñu ngi ci yëngatu bu baax a baax a baax ku ci bëgg mbiram këyit rek wala mbiram visa bëgg tukki incha allah boo boo ñu jotee rek bu ñu jëflantee rek incha allah yàlla dina si def tawféex parce que loolu lépp mbiram ñaan na rek ak mbiram góorgóor parce que nit ki moom mënoo toog rek ne da bëgg nga li rek toogal rek loolu mënut a sotti boo jogee rek ànd ak xaraka rek yëngatu tuuti rek yàlla mën na si def tawféex loolu ñu ngi liggéey liggéey bu am solo képp ku ñu si rek incha allah. duñ la jox àpp nag waaye buñ rek fekk diir bu gàtt di nga xam ne lu ñu jëflante ak yow di nga si dem ba ne sëñ bi macha allah li ñu li ñuy ñu ngi siy gis suñ bopp bu baax a baax a baax a baax a baax a baax incha allah kon mu ngoog acca euh, fexe leen ngeen jëflanteek moom mu di suñu mbokk yi moodu moodu yi ak faatu faatu yi ndax suñu borom am na lum ko ci dénk ci ñi nga xam ne dañuy sàkku saa su nekk lu mel ni kayit yooyu di koy sàkku mu jafe leen bëgg a déposé fexe leen ngeen jëflanteek moom acca euh, ci mbiram set laa bëgg ñu ñëw waaye seet bi maay dégg ñu la koy jëwe de ko seetal de moom ay mbiram mën naa tàgga témbe de seet ma maay dégg ñu la koy bàkk waaye xam nga lan laa bëgg ci mbiram seet nga seetal ma tolluwaayu réew mi ci laa bëgg nga jaare ci seet bi mm, waaw macha allah alhamdulilah ah, loolu wax dëgg ci am kontaan ak mbégte bu baax pour wax ko parce que lu ñu xam la luñ gëstu luñ jàng la luñ donn la ci suñu maam mm-hmm. waaw boo tax ñun ñu ngi suñu bunt bu ñuy seetee ñu ngi seetee si Ramli ramli nag dafa nekk xam-xam bu leer bu set boo xamante ne yàllaa ko joxoon yonent yàlla Idrissa ci moom la ko wàccee woon ginnaaw yonent yàlla Idrissa nag yéen yonent ñëw ci ci ginnaaw yëpp moom lañ doon jëfandikoo ak wàllu yàlla yu fi jaar yëpp moom lañ doon jëfandikoo boo alhamdulilah ñun ñi ñëpp ñu jot si ci lañ ñuy liggéey ci la ñuy def lépp lu ñuy suñu suñu liggéey daal ci moom la lépp lu ñuy def ci lañ ciy def lépp lu ñu la ciy wax du duñ la ci wax lii dañ lépp luñ ñu la ci wax di nga ko gis incha allahu rabbi waaw ah instant bi moo réew bi moom wax dëgg fa yàlla mi ngi si jafe-jafe bu baax a baax waaye instant bi moo alhamdulilah jàmm rek lañ gis te jàmm rek la ñaan jàmm rek sax fi senegal parce que ñun mu dara dul jàmm te jàmm rek a xaj réew mi wax dëgg fa yàlla. waaye jàmm nag da am lu koy laal jàmm dëgg rek moo koy laal bu ñu fi jaaree si dëgg rek incha allah ñun ñu am jàmm. Mm-hmm. da ngeen di seet da ngeen di listixaar ci laay toog desandi ba léegi seen mbokku seexu asrar mu di Cheikh Bara Ndiaye ndax gis nga fu mu génn ci fan yi nii wala ba léegi de desaat ci kaso bi ay dese na fay fan ndax yéen du ngeen toog guddi gi moom du ngeen nelaw da ngeen di wird di riyaad. waaw waaw loolu tamit alhamdulilah luñ ci wax si loolu mbiram état la te loolu jaay doole la lañ ko mën a wax man boog laa ko mën a wax. parce que ku nag sa gis-gis su loolu rek loolu nag jotewut ak dara si mbiram seet bi suma xalaat laa si wax ba pare soog ñëw si mbiram seet jaay doole la te ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla delloo si njabootam ba mu mën a tëb si biir njabootam incha allahu rabbi waaw loolu lañ ci mën a wax te ñu ngi ñaan Macky Sall it mu bokk si suuf Sénégal ñu jàmm rek lañ xam bi jaay doole amu fi xamuñ loolu dimbalante jàppalante rek te yàlla rek tax lañ xam. Sénégal ci loolu lañ fi fekk ci lañ fi bëgg a bàyyit incha allah. fatwa bi lu mu la wan léegi mu génn wala génn. waaw Seydou Bara moom incha allah léegi mu gën si gi moom fii balaa yàgg incha allah léegi mu gën si kaso bi loolu moom amuñ ci benn xel ñaar gis nañ ko gis bu leer nañu. balaa tabaski dina incha allah balaa tabaski mën naa génn. ñu jàll ci beneen ponk yaatal damay ñëw ci euh, cangatu ubbeeku bi ma dégg ñuy waxtaanee naan boobu moom koo ko jox euh, mbiram yëpp mooy ubbeeku. Mm-hmm. waaw alhamdulilah càngatu ubbeeku bi ñu ngi ciy liggéey liggéey bu am solo waaw képp ku si soxla rek boo ñu bu ñu rek di nga xam jëflante nañ parce que càngatu bu am am solo càngat boo xamante ne macha allah ñu si jot a jëflante ñëpp. Mm-hmm. ñu ngi siy gis seen ñu ngi ciy yëg seen bopp bu baax a baax a baax a baax. incha allahu taala. Mm-hmm. li nga wax ci suuf nag laa bëgg nga biral ci suuf ci ca kaw ñëpp euh, dégg ko ndax euh, dinañ la ci bàyyi xel euh, nga ne kan mooy doon président élection 2024 yi ndax fi mu ne nii Khalifa dina bokk Karim Wade dina bokk. ah lu ñu bëgg Sénégal ñëpp bëgg ko mooy ñëpp bokk ku mën sa morom duma comme ni koy waxee rek waaw. waaye loolu moomu instant bi moo guñ cee wax léegi xam naa fi ak ci kanam bu ñu ci génnaate nañ ko gën a leeral incha allah hmm. waaye lu ñuy ñaan daal. tey Sénégal lépp bëgg ñëpp bëgg ko. Mm-hmm. mooy ñu bàyyi ñëpp bokk ku ci mën a bokk bokk waaw incha allah loolu daal lañ ci bëgg. nga kat mooy doon président ki nga waxoon ci suuf kat. waaw loolu incha allah xam naa beneen sorti lay doon bu ñu génnaatee rek incha allah nañ ko gën a leeral bu baax. nga waxoon bu baax. non ba ba beneen émission rek nañ ko gën a leeral incha allah waaye instant bi moom daa ci liggéey bu ñu nekk mu na guñ cee wax bu baax a baax a baax a baax mm. xam naa beneen émission bu ñu génnaatee rek nañ wax incha allah lu leer lu lu dul dañ. wala nga tàggatoo. waaw alhamdulilah beneen yoon di baalu àq ñëpp di jégalu ñëpp lépp lu ñu fi wax mi njumte rek ñu ngi koy jégalu suñu borom. parce que doomi aadama matut lépp lu ñu fi wax mi ngënal mi xéwal rek yal nañ ko bokk ñu ñëpp. di leen nuyoo Cheikh bu baax a baax di leen di ñaanal seen bi yàlla na dem ba nekk chaîne internationale bu àddina bi ñëpp ràññee bu àddina bi ñëpp xam. waa di wax ni ñëw ñu pour wax pour bëgg wax ni rek wala pour ñëw pour bëgg feeñ tele nii rek. dañuy ñëw pour laay biirante ak jàmm yàlla si suñu yàlla dénk baaxante ak ñoom loolu daal moo nekkoon suñu sorte bi lépp luñ ci wax mi njuumte rek ñu ciy jégal bu baax a baax a baax a baax a baax.